ak euh, Mamadou Ndiaye du Ndiaye ñu ngi lay nuyu merci ci toog bi nga toog sa kër suba si. Euh, defaral sa téléphone bi mu ngi écho dañoo sonn ci télétravail bi. <laughs> nga xamante ne aussi mooy Babacar depuis démb bi ñu nouvelle bi maanaam euh, fukki at yi nga xamante waa fédération sénégalaise bu basket daan nañ ko moom euh, mi nga xamante ne fi président nekk euh, président bu yees bu Saint-Louis basket club moom Baba Tandian bi nga xamante ci euh, waa fédération bi nga xamante ni démb lañ doon def seen réunion commission bu discipline bu euh, fédération sénégalaise bu basket moo ko teg daan yi ni mel euh, li nga waral mooy liñ koy toppee mooy article bi nga xamante ni ay ay ay attaques yi nga xamante ni da koy def ci à chaque fois jëbal jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy jiitu fédération sénégalaise bu basket loolu waral ñu daan kii di Baba Tandia teg ko ay daan ñu tol fukki at yi nga xamante ni da du yëngatu ci wàllu basket wala yi nga xamante ni mooy activité yooyu nga xamante moom euh, à chaque fois daf ci fësal ne euh, daf ci am lu ci war a mën a bay loolu nag euh, tontoom moom démb dégg nañ ko ci bi nga xamante ni teg nañ ko daan yooyu tontoom mooy talagul li nga xamante ni mooy waa fédération la wala ci activité yi sanction yi nga xam ne teg nañ ko ko li mu tal actuellement mooy àndandoo ak sénégalais yi àndandoo ak autorités yi ngir xeex lii di Covid 19 Pape Cheikh. loolu euh, euh, jot nañu dégg tontuk euh, Baba Tandian defe naa ku toll ni Baba bu nu ko tegee ay daan yu toll ci fukki at loolu mooy retraite par force. waaw loolu moom am na mais xam nañ. xam nga màggat bu mel ni man ñu suspendre ma pour dix ans loolu mooy demal nga toog. demal demal nga toog nga noppalu. voilà mais moom moom moom xamee nañ ko ci euh, franc parler à chaque fois bu amee lu muy wax du ci nëbbu dara d'ailleurs loolu lañ koy topp ndax nee nañ attaques yi nga xam ne daf koy def euh, yu bari yi nga xam ne daf koy génn di di di ŋàññi ki nga xamante ni mooy équipe bu euh, maître Babacar Ndiaye mi nga xam ne mooy président fédération sénégalaise bu basket loolu tax ñu teg ko daan yi waaye xam naa ne bu du woon situation yi dina dina génn waxee neneen wala wax li nga xamante ni aussi moom daan yi dina ko ko jural ci wax nga ko ci at yi mu am ci surtout nga xamante defoon na ko ci basket mais surtout loolu mooy demal demal demal retraite mais actuellement tontom moo di euh, dafa nekk ci euh, Covid 19 bi te loolu moo war a nekk combat ñëpp. mu ngoog euh, loolu itam actualité la euh, ci wàllu euh, tàggat yaram bu ñu bëggul woon itam mu romb ñu mi Baba Tandian mi nga xam ne ni suspendre nañu ko pour dix ans et on revient ci Covid 19 bi nga xam ne actuellement moo lëmbee addina saa yu ñu xëyee dégg ci yu bees liñ ci gis fan yi mooy yokkuteeg defarug masque yi muy masque yi ma tuddee masque alternatif alors borom xam-xam yu bëri jóg nañu quand pour ne baax na mais l'idéal est ñu expertiser ko ba mu. mu gën wóor euh, ci wàllu euh, protection voilà loolu lu am solo la démb yaa ngi ko doon wax ci nit ñi jëfandikoo masque yi comme que léegi jël nañ dogal ne ñëpp nañuy sol masque surtout ci yenn lieux yi nga xamante ni ministère de l'intérieur précisé na ko loolu mu nekk lu am solo mais du ñu jóg ci sensibiliser moo tax on parle jamais euh, sans l'avis de d'un spécialiste moo tax ñi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy professeur euh, di docteur Omar Sarr nekk euh, responsable pharmaceutique géré li nga nekk fële ci laboratoire national de contrôle des médicaments nekk it aussi koo xamante ni xam màcc ci lool ci li nga xamante ne ay recommandations la wala ay euh, ni nga xamante la ñuy defaree confection wu euh, masques yi ak ni ñuy manipuler masques yi ak surtout ni ñu koy jëfandikoo lu am solo la surtout moment bi nga xamante ni nekk nañ ci xeex bi nga xam ne mooy xeexu Covid 19. Euh, sànq ba tey yaa ngi joxe exemple yi nga xamante masque du pour poche masque du pour teg fii ci wet gi wane ni yaa ngi sa masque masque du pour boo ko jëlee bu tilimee da ko war a fóot da nga ko war a passé am na ay conseils yi nga xamante ni docteur Omar Sarr defal nañ ko ci jàppandalu Dakar masque ñu déglu ko dégtal ko suñu mbokk téléspectateurs yi te ñëwaat. masque barrière masque yoo xam ne ni la dafa euh, jëm si askan wi du pour fajkat yi ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloo ak feebar ñu feebar déedéet am na ay organisme yu mel ni AFNOR yu OMS di jox ay recommandations ay normes euh, pour mën a defar de masques yoo xam ne dañu am ay des critères minimum n'est-ce pas minimum n'est-ce pas de qualité de conformité pour mën a aar nit ñi. scientifiquement wane nañ ne position yi maanaam booy wax bu wax si kaw euh, tëflit yi génn. wala boo tissoolee tëf yi génn euh, sa bakkan yooyu euh, dimension diamètre am dafay dem cinq ba dix micromètres te comme nu ma ko waxee sànq norme bi daf ne maillage bi waru wees trois micromètres kon xam nga ne mënul jàll par un effet mécanique ay physiciens wane nañ ko dafay am ay genre interaction chimique ay force de Van der Waals mën ma ko teg si wolof mais ay xeetu jàppante la yoo xam ne day tax ba position bi du mën a dugg et position bi dalee si kaw tissu boobu xam ne damay recommander mu nekk coton euh, comme ni ko noonu mi dafay absorber la couche d'humidité day déshydrater euh, virus bi bu boobaa euh, virus bi du mën a continuer ti voilà si virus bi quand même ay dimension ay nanomètres la dimension ay neuf mètres la un milliardième de mètre waxuñ ne masque bi day bloqué virus bi mais day bloqué position boo xam ne virus bi si la mën a jaar ba dugg si yow ba mën a dem si cellule boo solee masque bi sax dé comme ni wax sax day wàññi exposition yi parce que doo laal doo laal sa bakkan doo laal sa gémmiñ même boo laaloon tey dara virus bi donc doo mën a laal day bloqué état du Sénégal gouvernement ñu def le paquet pour appuyer les initiatives communautaire yi nga xam ne ñu ngi def lu ne pour pour pour defar ay masque l'université est prête à accompagner dans le cadre du service à la communauté pare nañ lu luñ si xam ñu si mën ñu accompagner leen ku nekk na nga fexe ba sa xarit sa anandoo sa dëkkandoo nga gën a ko ndax am nga masque loo mën def ba mu am masque nga def ko buñ ko jàppalante yaakaar naa Sénégal euh, solidarité am na fi mun nañ fexe ba ñëpp am masque très rapidement ku am piis nga may ku mën a ñëw nga ñëw may ku mën a expliquer nga expliquer ku am sa alal nga dimbale ko nga joxe. voilà euh, c'est toujours intéressant ñoom borom xam-xam bu ñu dee wax dañuy gindi parce que ñoom ñoo jàng ñoom ñoo xam dëgg la am na yoo xamante ni euh, xel rek moo koy mottali waaye comme sama classe gi duñuy far di réfléchir ci yenn yi c'est toujours bien de les sensibiliser comme nous le faisons ci euh, télé bi ñu disponible à chaque fois ñu yoo xam ne bu ñu ko dégloo dinañ gën mën bàyyi xel ci yi bi ci tegu par rapport ak geste barrière yi faut le rappeler mooy port obligatoire bu masque yi masque dafa am nu ñu koy solee waxee am na ñu koy defar ma waxaat ko muy masque euh, euh, artisanaux ou alternatif waaye yooyu itam baax na ñoom it bu ñu ko dee defar euh, ñu respecter norme yi kay ñaw na ay loxom set na machine am set waaye jumtukaay yi itam na mucc ay ba nga ni ki koy jëfandikoo du daw Covid faf am pire que Covid Covid. Euh, nekk tissu boo xam ne tissu coton la ndax dina permettre aussi euh, li nga xamante ne mooy virus bi du du du jàll te loolu nekk na lu am solo waaye euh, comme ni nga ko waxee rek bu fekkee yenn yi sax boo koy dégg da nga naan bu ko xel rek nangoo sax comme que dañuy xeex virus waroo mën di ñaw euh, masque yi te di euh, waroo mën a jë euh, say loxo waru mën a set sa machine waru mën a set ak tissu yi ngay utiliser nga xool ko bu baax yooyu noonu yëpp ay mesures yi nga xamante ne war nga ko mën a jël wala ay matuwaay yi nga xam ne war nga ko mën a jël ngir fexe mën a gën a mën a yokk wala mën a fexe di xeex jàngoro ba yeneen di la ci fekk comme ni nga ko waxee moo tax ñi soxla borom xam-xam yi tamit ñu ciy dimbale di ci jàppale di gën di sensibiliser sensibilisation moom du mës doy chaque suba bu ñu doon wax ba waxoon suba it ñu xëyaat ba wax ba ngoon ngir fexe xeexandoo xeex jàngoro bi loolu nekk na lu am solo te loolu waral Pape euh, ci dimbal jàppandalu euh, Demba Gueye mi nga xam ne moo nekk Dakar masque di xeex tamit ci mbirum euh, masque yi sénégalais yëpp am seen masque ngir xeex Covid 19 yi dem doxal ñu xoolal ñu docteur Omar Sarr mu indi ci ay te loolu nekk na lu am solo Pape Cheikh. ak waa Dakar masque amul benn problème parce que xam amatul ci yéen moo tax ngeen libre mm-hmm. noonu ku ne xaritool ku ne teg Euh, goro Macky Sall bi nu mu tudd ki ñu dénk xaalis bi te mu ñàkk ñàkk yu yooyu barki dem ci télé bi nu mu tudd ministre solidarité xaw ma eh, yaa gën a xam turam da ngaa ragal da ngaa tàppet Mansour Faye ki bëgg a plainte Babacar Fall nu mu tudd Mansour Faye xam nga sénégalais yi nee nañu bu yi passé ji nañ ko laaj bilan <laughs> mais yow Bijou Ndiaye Mado bu yi yëpp passé ak coro ak surtout bu yëpp passé di ngeen naa leen laaj bilan. ñun ñëpp yow tamit dañ lay laaj bilan. ah déet man xanaa ba ma lay laaj bilan di nga laajaale Assane Seck bilan. waaw mooy kookoo jara laaj bi laa nag yi ma xam sax dafa bëri bon y' a pas de souci de toute façon euh, bugguma indi benn problème dama lay bàyyi nga euh, nga àggali sa liggéey merci Mamadou Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax merci ci toog bi nga toog sa kër très intéressant li nga ñu présenté jëm ci euh, professeur boobee nga xamee ni ma nga université Cheikh Anta Diop doon ñaxaat nit ñi a gouvernement bi surtout par rapport ak masques yi nga xamante ni on peut on peut mën nañu ko tuddee ay plan ay masques yoo xamante ni tailleur yaa ngi koy defar ñu xër ci lool na ñuy maye mais lépp rek euh, euh, baax na mais li ci ëpp solo mooy ñu respecter euh, consignes yi par rapport ak cet gi surtout il faut que masque yi nekk loo xamante ni daf ñuy aar boo ko takkee nag ba mu xaw a tooy na ko dindi bu dee bu ñuy fóot nga fóoti passé mu dañ microbe bi dañ bu dee masque chirurgicaux yi nga xam ni jëfandikoo ko nga ko ba mu xaw a tooy boo ko simmee bu ko takkaat l'idéal est nga sànni ko ci mbalit bi et puis ñu éviter di sànni masque ñu jëfandikoo ba pare euh, ci euh, mbedd yi ñàkkul ni ay xale euh, mën na nañu ko for xale yi dañu sob surtout ñi nekk ci tali yi actuellement donc mën nañu ko for jëfandikoo waat ko parce que dañuy gis mag ñi di takk ay masque tout le temps donc l'idéal est bu ngeen ko jëfandikoo ba pare ngeen sànni ko ci poubelle yi on va continuer dem